waaw jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki internet yu RTT TV ah ñuy amaan mbégte kontaan de saa su di ànd ak yéen ci programme RTT TV tey ñu seet waat ñu ngi waat ci làmb seet si benn champion ñi ngi fii ci Thiès kaay koñ bu ñuy wax Ersan seet si ndaanaan seet si xale nekk ci làmbu kuñ koy wax Modou Anta numéro 2 di xale nekk ci làmbu di def ay profam ñu gëj koo gis ci làmb nag mais boobu ba léegi mi ngi ci ruqam di liggéey Modou kon dañuy lu ñuy def rek dañuy bàyyi gan gi mu nuyoo ñu ànd ak moom ci waxtaan wi Modou ñoo ngi lay nuyu. waaw Baykara ñu ngi lay fay di wax jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou. ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur sant sëñ Moussa Wa Saliou mi sama sëriñ di ko ñaanal gudd fan ak wér ak xéewal xam yàlla bàyyi ko fi ba li mu sumb ci yoonu sëriñ Touba bi yàlla suñu borom suñu borom kàttanal ko ba mën koo yeggale di ñaanal soxna Xadi Mbàkke mu sëñ Fallou yàlla guddal fanam di ñaanal sëñ Madiar Sarr sama turandoo yàlla yàlla yokk ay leeram taas ci barkeem. di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu waa r di wax maa nii daal. waaw yéen gis champion bi noonu la nuyoo muy Modou Anta numéro 2 donc xale nekk ci làmb di wane ay preuve mais ñu gëj koo gis lool ci làmb Modou Anta fan la nekk. non Modou moo rek ak ay mboqam ak ay aussi am na jàmm yeeg yëpp ñu ngi ci ñoo ngi ci lu ñu war di xaar bis bu rafet rek. <laughs> mais Modou dañ ko gëj a gis mu bëre ci promoteur yi wala ci Modou Anta la. non du ci wala du ci promoteur yi du ci Moodu te am na yaakaar du ci adversaire ndax man amoo problème adversaire mais xëy na bis bee jotagul. <laughs> bis bee ko jotagul Moodu lan lay xaar. non pare nañ yow ñun moom saay tout le temps rek pare nañ lamb mooy suñu métier jox nañ ko gëddëm te bëgg nañ ko comme ni ñu waa lamb bëggee kon xëy na bis bee ñëwagul rek. <laughs> parce boo gisee ñu wax loolu dañuy gis Modou Anta chaque année daan na bëre ñaari combat lu mu gàtt gàtt wala ñetti ko wala wala ñetti combat ñu gis ñaari année yi jàll yëpp mën nañ ne par Modou Anta par benn combat lay bëre. waaw booy xool bi fi làmb géejee bokk naa si ñi ko tëj saison bi bëri naa ak. Ziggy Marley Ziggy Marley aussi maa ngi war ak avance bu ma waroon a bëre si la mbas mi ñëw boobu ba tey làmb mu ngi soog ubbi ta su ma jëmu na. avance kan nga jëloon. <laughs> avance rek lañ ma joxoon mais surtout ñu woon benn mbër. Ah. Modou Anta mi ngi ci ñaata combat. Modou Anta mi ngi ci 14 combat. waa combat. waaw 14 combat 9 victoire 5 défaite. sa combat yëpp Thiès nga ko man bëri naa 4 combat soo ko bëri Thiès bëri naa Iba Mar bëri naa Stade Ndiarème. Ah. soo ko bëri Thiès. mais ba digri nga nekk fii. er sama mbooloo. <laughs> mais mais mu sant mooy sama fief quoi. Ah. Mhm. lan moo waral Modou Anta numéro 2. waaw Modou Anta numéro 2 mooy ku rek ni Modou Anta numéro 1 mooy Tigre bi tam moom la fi yàlla teg di profité di ko encouragé rek boobu ba tey maa ngi soog a def sorti di ko encouragé di ko wax cees moom lañ am ginnaaw yàlla lu coow li bëri bëri bëri moom lañ am di ko encouragé di ko wax na jàppaat looloo waral tur rek mu ñu am ci moom cofeel tuddee ko suñu bopp loolu dong la. Modou Anta am 14 am ci neuf victoire cinq défaites ñan la bëreel mën nañoo xam victoire yi kan ak la. <laughs> non na bëri na ak Pape Cargo na ak Juma Thior bëri na ak Bour Gueweul soo <laughs> yooyu nga bëri Thiès. yooyu laa bëri Dakar. yi nga bëree nga bëri Dakar. Mhm. Thiès nga bëri fekk sew diis. bëri naa fekk sew diis. ak Mbisaan Jon ak Mbisaan ak. Euh, <laughs> waaw fay day yàgg ba da ngay fàtte. koy fàtte. mais bëri naa am naa 15 com ma moom. daan. Caatu am na nogay. am na nogay am na nogay benn. am koy nuyu sax moom sama waay la. jour combat euh, kii ambulance ak. Naar Sogas waaw bëri naa ci Pambay kii moo bëri spécial mais Pambay ak. Jam Thierry Jam. yéen deuxième spécial ñoo bëreeg Ziggy Marley a may ko ndam par avertissement. par avertissement. waaw. <laughs> mais ku jour boobu da ñëw téye sa bopp te dañ daan gis Modou Anta ay combat muy dikki indi xeex. waaw comme li ma wax rek bi ma bëree ak caatu ama yaakaar ci laa jógee bëreeg Ziggy Marley. Hmm. dañoo toog staff bi wax ñu ni ma da ngaa war a déglu conseil mais ku ne man foog ma anti làmb am toog conseil que attaquant boo ko boo ko tegee défense lu ñëw mën naa dugg ñun ay attaquant mais boo ñu taxawloo rek. fekk fara dañu daan taxawloo su combat yu bëri ñu koy ñaax kon bu ñu taxawloo mën nañoo taxaw loolu la rek mais ñun moom amaanoon nuñ bëree noonu sax ñun la gën a jaaxal luñ bëree noonu. dafa am beneen combat bu mooy ñëwaat muy sa combat caatu ama ñu bari di joxoon la favori nga dikk ca combat bi mel ni da ngaa nawloo wut sa adversaire. <laughs> non moom tamit champion la maa ngi koy nuyu mais bi may bëree moom boo doon sa xaalis doo ko teg si moom. lu tax. no xam nga rek. xam nga am licence nga am licence. moo tax mala sampion la maa ngi koy nuyu mais néew na samay morom yi may bëreel doo teg si ñoom. lu waral loolu Modou. ñëpp ay ndaanaan la ñëpp ay champion lañ mais yàlla bu la may fukk yamul ci fukk yooyu rek amul fukk yooyu rek am na lu lépp fukk bisu ndam nag bisu ndam la. da ngaa yaakaar ne yaa loolu sax ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ. da ngaa yaakaar a dàq <laughs> ñëpp ay ndaanaan lañ mais di nga comprendre daal xam nga amoo droit critiquer ndax sportif la comme ñoom. mais ku ku ci yoroon sa xaalis bu arbitre tëjee bareel doo ko teg si ñoom baag sëñ Saliou <laughs> ñëpp nag ay ndaanaan lañ. ñuy jaalaat ci beneen combat combat boo xam ne da ngeen a bëree ba ñi doon seetaan ñëpp kontaan mu yow ak caatu Samba Diaw <laughs> ngeen mbootante ba génn saako yi. no non nga naan nga mboot ko ngeen génn saako yi mais mbootante wuñ. moom la mboot wala yow man maa ko mboot. mu yokk la waaw mu mu jéggi quoi mais xam a rek mooy li ma rek ñoo ñëpp ku ma ci bëreel liy neexal bisu man la. yow mi man. na man attaquant la damay ñëw te am na lu ma Sénégal di bàqee mooy attaquant la moom kay da ngaa mën a xeex lañ lay bàqee. moom moo gën a ndaw ci li ma mën li daal seex nag moo ma dal. léegi yow mën a xeex gi kan nga kaaw. non man man bëri naa trois combats Dakar mu ci internet bi yoo xamante ni yëpp ay dóorum daanu la buur géwél dama ko dóorum daanu Pape Cargo ma 2 dama ko dóorum daanu Juma Coor dama ko dóorum daanu tam bisaanit dama ko kaaw. waaw léegi lan moo waral yoon wi yéex nga am 15 combats. 14 waaw mais xam nga rek euh, lépp. loo ba léegi bëreegoo grand combat. non bëreeguma grand combat mais amaana dafa jotagul rek parce que ñii bëree grand combat niñ koy neexalee nu ko raw laa koy neexalee te fi leen xamee lañ ma xamee mais nii loxo yi suñu borom nammee. Modou Gueye su ñëwee moom day ambiance. noonu loxo yi amateur comme rek ab bi rek bis bu bis jotee rek parce que gis nañ fi ñu bëre trois combats bëre grand combat looloo neex suñu borom ñun ay jàmm lañ ay taalibe Serigne Sall lañ aussi ñun nangu ndogal nii loxo yàlla bëggee xam dafa am benn affaire bu ma jaaxal souvent gars yi dañuy bëgg a yàkkamti pour dem dakaar yow nga jege dakaar dem bëre fa am fa tegale fa ay victoire bàyyi fa dakaar Dakar wàññeekuwaat ñëwaat Thiès lan moo waral lool waaw mais xam nga dama dem ba waa Dakar bëgg ma nangu te doomu Thiès laa bayal laa juddoo diggante bayal njóobeen ba Mamara fa laa fawee restant laa mais gars yi dañu rëbb ca coow la Dakar fa la coow la nekk. kenn weddul mais man ragaluma coow la ndax man. bëri na loo coow la takkaat say say kaake ñëw. non du loolu xam nga xam nga tey nekk si sa kër ak nekk si kër jàmbur bokkul kër jàmbur boo fa nekk rek dafa fekk waa kër ga bëgg nga nekk fa mais ñu bëggatoo nga nekk fa mënoo faa nekk te boobu ay tout tànk lañ amuñu moyen di demal sunu bopp ñu ñibbisiwaat ci mbokk yi mais ba tey nii bu ñu amoon combat Dakar dañuy jël. Hmm. bëri na mbër yu fi dagg licence samay morom suñu côté bii maa tax ñu dagg licence bëri a yow mii ba fi amoon man maa fi taqee jëm Dakar. bëree ji ñëwaat bëree ji demaat demaat demaat ba muy ñeenti yoon samay morom soo ko dagg licence te ñoom ju ci lam fop ñu koy sant yàlla quoi. Modou ku nekk ci xelam. man ñëpp. man kay xam naa ne ñëpp nekk sa xel <laughs> mais kan nga bëgg a bëreel fi mu ñëpp. ñëpp moom mënoo bëreeg ñoom kay ñëpp la bëgg a bëreel ñëpp moom mënee bëreeg ñoom xalangu dajul suuf non boo déggee mënu ñëpp mooy que ni bàyyi ma fi kenn xam nga nag Thiès moom dafa neex Kara yow mii sax bu ma ne woon yow laa bëgg a bëreel bu yàggee nga ni du ma moromoon te xam nga ni weesoo goo foo nekkee sama morom mais promoteurs yi ñoom soo waxee dinañ xam ne yow mii yow ak diw combat la waaw promoteurs yi ñoom dinañ ko xam <laughs> mais man amateur yi xam nañ ñi jaadu yow mi yor sa licence ju bëre xam nga ñi nga war a bëreel Modou ñi war a bëreel samay morom la ñu ngi ci làmb ji ñu ko dalee ci suuf ba ci kaw ku ci am licence bu ñu làmb boole suba suba ñu bëre bàyyi moom mi def ñii laa bàyyi ci làmb Bébé Lirou ak Mbacké Volcan. ak Mbacké Volcan jeex na bàyyi ma keneen ci làmb. sa combat ak Laye moom du ma ko doon dégg. non <laughs> loolu moom xam naa rumeur la rek. Laye Dragon mel. xam naa rumeur la rek mais kooku. Laye Dragon bu waree leen nga ni la. <laughs> ki la daan de moo ko moo yéen ñaar a bokk leen daan. <laughs> daa mel ne combat sax moom gars yi nee moo gën a jafe. <laughs> combat moo gën a jafe ban combat. moo caatu am. moo gën a jafe. gars yi da loolu lañ wax. man caatu am ah, bëri naa moom lépp 15 minutes dañoo bëri ba mi temps bëriwaat ñoom seen combat motul 2 minutes kon jafewul. <laughs> mais làmb jaa neex. déedéet sama combat caatu am moo neex. yow mi waaw ah. ah, moom tam boo ko laajee daal kon moo dàq mais man moom vraiment waxi laay dara sax waxuma ko. waxoo ko. waxu may waxam sax vraiment waxu may waxam sax. donc ko ñemewut wala moo moo tax waxooy waxam. maa ngi soog a dégg ku ni mu daan te ñemewul diw moo ma nekkee mbur ba tey ragalu ma loolu mais. laay dara koo neexut a ñeme de. ba tey dama ko ragal. laay mu xëppoo ban rek. du ma moom. turoo soo <laughs> dama ko ragal. nañ ma xoolal ñu yem ñi quoi comme que moom nee nga gaynde la. ñan ñoo yem nga bëgg a jël. ñeneen ñëpp mais laay moom vraiment sam bët jege na sama bët bi teguma ko vraiment jéggi naa ko lu bari léegi fan nga teg sa bët comme que sa bët jéggi na Laye Drago bi nga xam ne yéen tolloo lépp bokk ku leen mujj a daal. képp ku am licence pare naa pour bëri ak moom mais Laye bëriwuma ak moom. kon na da raw ci làmb. waaw ba tey moom raw <laughs> nañ ko tuddee noonu. avance kan nga yor fi mu toll. avance promoteur yi laa yor. <laughs> promoteur yi dañoo bari promoteur yi Thiès wala yi Dakar. non xam sii Sidi moom du sama promoteur sama papala la. Mhm. aussi mook samay kilifa ñoo bokkoon foo fowandoo ñu bokk koñ bi kooku du ma ni sama promoteur la te dafa bokk ci samay conseil xam nga mën naa ni maa ngi avance am parce que du tëgg làmb te contacté wu ma waa CNG aussi maa ngi seen avance bàyyi sama production maa ngi avance mais avance promoteur rek laa yor mais yoruma avance mbër. sa combat ak Boy Ndoye yi bëgg nañ ko de Modou Ba. waaw mooy li ma la wax rek man du ma cité kenn mais képp ku ma la ku ma laam booleel ba ci Modou Ba nag keneen ak keneen bu jaadoo ñu bëre. pare nga pour bëre booy Ndoye. pare naa pour bëre ñëpp. Boy Ndoye diisut yow. pare pour bëre képp kuy mbër. l'enfant Kër Baabaat avant sam mi ngi taxawaal l'enfant men dama ni képp ku ma contacter proposer ma adversaire danañu waxtaan suñu biir jël ko dem bëre. combat du yàqoo ci man ndax mosul am. Hmm. ba ci ñëpp ñëpp nag. jaxaaw moom daa mel ni fi mu toll sa adversaire jeex na fa. non bul wax loolu. jaxaaw jeexu fa. jaxaaw koo fay bëreel. bëri nañ. kan dafa bëri. Papa Ndiaye Hong Kong de moo xam naa ne doo jël avance. waroon a bëreeg Mor Sarr. ku ma ci làmb booleel ma bëreeg yow. Papa Ndiaye Hong Kong Thièli. ku ma ci làmb booleel ma bëreeg yow. du du turu kenn du Hong du keneen ak keneen. mais ku ma ci lamboole ku dul Bébé Lirou Boy Jaxaw ak Mamor ak Volcan ma nga xamante ni moom sama mag la ku dul ñooñu ku ma ci làmboole mais bëri ak yow. comme ak vol kii euh, Papa Ndiaye ko ne moom day neex parce que da ngeen a neexoo <laughs> te ñaari xeexkat ngeen. sama bëre nag moo ma jaaxal. sama combat ak ñëppay ne yow yow Kara déggoo ma la léegi li dal seex nag moo ma dal léegi. lu dal seex nag kenn koo bëre Thiès mais tout le temps dañu naan dafa mën a xeex mais man xam na ni samay morom kenn dàqu ma cee wallaahi mais nag nii nii loxo ko yàlla dogalee ñu ni diw dafa mën a xeex amaana sax man xeex bi ñu wax yëguma ko ci sama bopp man ndaw rek xëy na damay ñëw làmb yàlla dogalee ko noonu rek ñu gisee noonu mais mooy loolu. sa kàddu yu mujj lan la kon. waa sant yàlla jël si yonante bi comme ni ma ko defee woon di nuyu staff bi ku ci mel ni sama papa Amadou V Diallo kooku moom sax du sama coach coach su la mais man du sama coach. sama kilifa la ndax sama kilifa moo ma yëkkati ni ma may naa la ko kon kooku du sama sekkuñu ay course bu làmb jeexoon it sama kilifa la dañ ma ko may Assane Ba Thion Sëñ Mbay Kabasaar ëmma di sant suñu waa kër yu ma sama yaay bàjjen di sant Modou Ndiaye sama jëkkër mag la moo ma yor lépp di sant waa Ersan gépp woo sant waa Bayal di sant Père Pambay parce que moom it borom baax la Aliou Ngéye téléphone am du wàcc ci man di chaque jour damay woo di ma conseillé di ma ñaaxaat mais di jaale Axma Axma Axma Dieng kooku sama waay la kenn la ci man kenn la ci mbëru ersan yi kenn la sax ci mbaru Cees yi suñu borom da ko fay jëlee lu yàggul dara di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge mais di ñaanal Galasit suñ Fallou di ko ñaanal Ahmed Baye Fall Ahmed Salañ Salañ di moyes Omar Diko ñooñu ñëpp ci ñun lañu bokkoon yàlla jëlee fi te defuñu yàlla tax mu yóbbu leen mais ñu ne defal defaluñu yàlla tax mu bàyyi ñu fi xëy na ni la ko bëggee di ñaaxaat mafia bi yëpp ni ko ni leen màggal gi jub si na safar gi na ci gars yi xar seen tànk tubay di ñaan yàlla na jàmm yàgg ci réew mi mbas mi yàlla na fi jóge ba gars yi mën a dellusiwaat parce que làmb la gars yi namm man nag maa ngi ci li war a nekk na ñëpp waaj di coach si yeeg manager staff bi supporter rek ñëpp. kon daal moo di ren moom dina tooyal xaftaan nu ñëpp waaj yàlla baax na. <laughs> waa gis nga noonu la demee woon Modou Anta lañ dalaloon di xalab Thiès nekk ci làmbu di ndaanaan bu bëree mu neex bu tuusee mu neex di nuyu grand Amadou Diouf bu baax a baax magam di nuyu Veye Diallo bu baax a baax Côte di nuyu waa làmbu région de Thiès gépp di leen wax tamit ñu waaj le treize incha allah Ahmed Salañ Salañ ak Galas ñoom la ñuy defal ay ñaan di nuyu di ñaanalaale ax moom muy wax parce que tamit dañ ko daan gis ginnaaw Pambay di ko gis ci mbëri ci ersan eh, eh, yi mu leen di jàppale bu baax a baax di ñaan suñu borom mu yërëm ko te xaare ko àjjana di jaajafal ñëpp di jaajafal duudu mi nekkoon ci réalisateur bi ak di gërëm sekk mu Seck Momadou sekk Père Pambay di leen jaajëfal ñoom ñëpp ah jaajëf